mawlaana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man waalaa wa radiya allahu an as-sahaabati wat-taabiciin wa man tabicahum bil-hudaa wal-iimaani ilaa yawmi ddiin amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo yeyoo cant li ko ñaan mu wuutuñu ci boppam santal ñu boppam ndax jàmmanu la xam nu yàlla toll ba mën a xam li yey ci moom pour sant ko ñaan ko mu julli ñi ci yent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mboolem saxaaba yi ak taabiina yi ñu topp seen njub bés pénc ñu ngi nekkoon ci silsila bii ñuy wax as silsilatu fi siirati nabii sallallahu alayhi wa sallam muy ay sëri ak ay tabarakallahu yu ñu jagle loon jàngale kat mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne loolu jullit bu ko xam dana jur mu sopp ko bu ko soppee dana jur euh, mu topp ko te ku ko topp ba dee ci dalay taxe ah, fa tabarakallahu ñu ñëwoon ci doon tàmbali xazwatu Muraysi' muy benn xare boo xam ne yu bare bari daf cee xew euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam décembre l'an 629, euh, dañ ko wax ne ko diraar ku ñuy wax xaaris ibnu abi diraar alxuzaa'i dajale na mbooloo mu bari ci côté est bu Madina pour bëgg ñëw dal ci kaw ba mu ngi dajale mbooloo comme yonent bi aadam du toog ba nit ñëw mu jug woolu jullit yi ne leen nañu dem dégg nañ ne xaaris ibnu abi dirar alxuzaa'i almustaliqi dafa jóg pour dajale mbooloo yoonam bii nag nattu la naafiq yi nekkoon ci dëkk bi yëpp te abdullah ibnu ubay ibnu salul jiite leen dañoo am occasion ne dañuy demaale ñoom euh, mu wuutal ci dëkk bi ku ñu wax zeyd xaarisa am yeneen téere yu ne abu zar al gifaar yi la wuutal di dox di dem def ay maraaxil bi muy génne nag comme léegi am na ñeenti soxna fa bokk ci aadam dafay bantale buy dem sawdatu mu ngi ci kër gi ak aïchatu ak umu salamata ak zeynabu bintu jaxsi bi mu takk bu yàggul euh, bant bi dal ci ñaar ñii muy umu salamata ak aïcha ñaar ñele des fële mu ànd ak ñoom nag ci tukki bi ñu génn dem bi ñuy dem ba dem ci bani mustaliq ci barab bu ñuy wax Muraysiya ñu kampe fa seenanteeg xaaris ibnu abi dirar muy am am lu fit ñu def attaquement def benn komba ñu rey ci ñoom fukki nit bi ñu reyee nag ci ñoom fukki nit ñu tiit daw daw bàyyi fa dëkk ba bàyyi fa alal ja bàyyi fa jigéen ñi bàyyi fa seeni doom jullit yi nag topp leen jullit yi topp ba jàppaleen ay otage góor ñi rek mat nañu sept cent personnes jigéen ñi kenn xamul nu ñu toll ak xale yi yonent bi rëgët leen yóbbu leen waaye ci biir xare bi dafa am benn julit bu juum rey benn moroomu julitam bu ñu Hisham ibnu Sababa Hisham ibnu Sababa bi après benn mbokkam jóge na Makka muy ku ñuy wax Maqis ibnu Shababa ñëw ci yonent bi ne day tuub tuublu si bi mu ñëwee ñu boole ko ci biir julit yi fexe na ba laaj xam kan moo rey frère ñu ne ko diw mii la mais teyu ko woon mu ne yonent bi dama ñëwoon pour jël ci diyam mooy njot gi ñooñu effectivement dajaleel ko xaalis jox ko ko ba mu jël ko moom dafa waxoon ne day tuub si benn muy maqis boobu ñaareel ba mu laaj na diye bañ jox ko waaye mu xaar ba wéet ak waajooju noonu rayoon frère ray ko ci guddi ba pare jël gëléem daw génne euh, madinatul munawwara dellu ma màkkatal mukarrama murtad ba pare ray jullit looloo tax yonent bi sallallahu alayhi joxe ndigal ne fu ñu ko jàppee rek nañ ko ko indil walla ñu rey ko xare bi euh, li ci jullit yi am ci ay otage musuñu ko am ci xare ndax xeex ba mettiwul ndax xaaris bi mu xamee ni ñii am nañ doole euh, dafa daw xaaris ibn abi dara daw nag bàyyi fa ay soxnaam ak ay doomam yonent bi jàppale bi ñu demee ba sori après nag doon séddale sabiyu bi séddale ko yàlla dogal ku ñuy wax saabit ibnu qays euh, ñu sedd ko soxna su baax suñu wax juwayriyatu muy baratu bint xaaris ibnu abi dirar ndaw suñu wax baratu nga xam ne jëkkëram moo doon musaafi ibnu safwan di doomu bàyyi ci góor gi euh, dañ ko jàpp biñ ko jàppee ndaw su am taar la nag te yaru baax ñu sedd ko julit bu ñuy wax saabit ibnu qays ibnu shambaas am ñu ne déedéet doomu baayam la waaye ala kulli xaalin ndaw si moo wax ak waa ji ne ko man duma ab jaam parce que sama baay moo yilif dëkk bi yépp muy xaaris bi nga xam ne moo sooke xeex bi kon manuma des ci seeni loxo te man sama baay di kilifa man princesse la léegi may ma ma dem ci seen waay ji wax ak moom pour daal pexe am waaye yéen mënu leen may yor di ma moom te man ma ëpp leen rang baratu moom nag moo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyonteeg moom nee na bi ma ko gisee rek ci buntu xayma yonent bi ci laa xam ne dina ko bëgg dina ko takk ndax yonent bi dafay nit ku sell di nit ku tey di nit ku baax te nit ku baax nag foo gisee lu baax dinga ko bëgg foo gisee lu rafet di nga ko bëgg Aïcha nee na bi ma ko gisee rek commencé naa ko fiire ndax xam naa ne kii bu ko góor gi gisee dina ko bëgg mu ne ko man dama doon laaj sang bi mu ne ko mu ngi ci biir bi mu duggee mu ne ko man maa ngi tudda baratu sama baay nga doon xeexal waaye dañ maa jàpp ci xare bi jullit yi nag séddoo ma ba ku ñuy wax saabit ibnu qays ibnu shamash ci cëram laa mujj dal man nag mënumaa def di jàmm dama ne ko woon na ma wax lan la bëgg ci alal ma fay ko ko te jot sama bopp ndax doomu kilifa la yonent bi sallallahu alayhi nekk sallam ne ko ñaata la la fayeku mu wax ko euh, lim bi mu ne ko awa xayra dalik ndax bëggoo leneen lu gën loolu mu ne ko lan la mu ne ko ma fayal la sa bor ba pare takk la loolu nag lu rëy la ci moom parce que koo xam ne jàmm la woon dañ ko waroon a fobeeraloo kër gi di ko euh, di ko xarloo matt léegi nag yow prince jullit yi ruwaawu jullit yi donte nabi la moom wax ne da lay takk loolu xel xalaatu ko woon ci moom mu ne ko ah kay loolu kay bu ma ko mënee am jël yonent bi woolu saabit jël alal jox ko euh, gorel ndaw si ba pare boole ko ci ay soxnaam boobu xale bu jigéen rek la comme yonent bi nag turu baratu baratu mooy firi ku baax ki te yonent bi bëggul nit kuy setal boppam maanaam kuy sellal boppam di tagg boppam moo tax mu tuddee ko juwayriyatu bintu xaaris ibn abi dirar al mustaliqiya euh, mu mujje ko boole ci ay soxnaam kon soxna yi tey ji yokkuwaat nañu te muy li Aïcha doon junj waaye ci xare boobu yu bare bare bari def ci xew mais ñu tënku ko rek bokk na ci ku ñuy wax Jahjaah ibnu Saïd ak euh, euh, Sinaan al-Juhani dañoo daje ci benn bassin de retention boo xam ne dañ fa doon wëgg seeni fas Jahjah ibnu Saïd Omar ibnu Xattaab moo koy fay maanaam moo ko embauché di ko fay mu koy liggéeyal yenn liggéey Sinaan al-Juhani moom ci Xasraj moom xulafaa u Xasraj la Xasraj mooy mbokki waa Lansaar yi nga xam ne ni Abdullah ibnu Ubay ci ñoom la bokk ñu daje nag di wëgg seeni fas wala seeni gëléem ñu wax fa wax yu sew maay njëkk wëgg doo wëgg coow li bi mu bare ñu dóoranti kenn ku ne fayu omar ibnu euh, jëhja ibnu said ne waa muhajira ana waa makka ana waa muhajirina yi loolu xeet la ci woote wallu sinaan itam aljuhani ne waa ansaara ana waa lansaar yi kaay leen wàllu ma yéen itam woote yooyu nag fu ñu ko masaana woote ñëppay daw jub di xool lan moo xew bi muhaajiriin yi tëbee lansaar yi tëb ñu ñëw daje daje ndoo ci mbalka mi ah ku ne xool sa morom ñëpp ñëpp ay bokk lañu Abdullah ibn Ubay na lu xew ñu ne euh, Jëhjaah ibnu Saïd di benn embauché wu Omar ibnu al moo doon xuloo ak ku ñuy wax Sinan al-Jihani euh, ba nangam ak nangam xew na ci mag ñi yeewu dalal leen ne leen bàyyi leen li ngeen def dalal leen ba ñoom ñëpp ñu bàyyi delluwaat Abdullahi nag ibnu Ubay mer ci loolu ne xaat ñoom ñëw nañu ñoom waa muhaajiri nañu dalal leen ñu nekk ci dëkk suñuy kër lekk suñuy alal yokk suñu dëkk tey nag dem nañu ba fuuy commencé nan dañuy woote pour xeex ak ñun lii daal moom la arab di wax naan sammin kalbaka yakul ko boo yaree sa xaj ba mu màgg yow lay njëkk a lekk li ñaan ku yar sa xar ba mu matum kuy yow lay njëkk mbëkk Abdullah ibnu ubay ibnu salul loolu la wax ne waaye garaawul yéen waa lansaar la in rajacnaa ila al madinati la yaxrujanna al aazzu minha al loolu nag waxam la garaawul dañoo na ci àll bu ñu dem ñibbiwaatee ba madinatu munawwara man mi fa gën a rëy yax yax bu rëy laa bokk man abdullah di cosaanu dëkk bi dinaa génne ka fa gën a torox te ka fa gën a torox ñépp xam nañ kim ci jublu nee na moom moo jàpp moom moo gën a tedd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyaazu billah la jàppe la ca des loolu nag daf ko waxoon ci mbokki naafeqam yi ci biir xaymam foog ne kenn déggu ko ndekete benn xale boo xam ne à peine dix rek lay am ku ñëw Zayd ibnu Arqam Zayd moo rocciku dem ba ci yant yàlla muhammad ne ko man de dama dégg lu rëy mu ne ko lan la mu nettali ko waxu Abdullah ibnu Ubay yonent bi gëdd ko ne xëy na ni nga dégg ni nga déggoo li mu wax mu nekk ko maa ko dégg lii la wax yonent bi nag feebar ci dégg ndax wax ji rëy na torop torop donte du nekk sax waaye dafa ñaaw mu woolu Saad ibnu Muaz mii nga xam nii mooy sayyidu Aws ak saadu ibnu Ubaada mi nga xam ne mooy Seydu Xasraj ne leen mais yéen xanaa déggu leen li xew ñu ne lan la mu ne seen waa ji Abdullah ibnu Ubay ibnu euh, Salul wax na nangam ak nangam euh, ñoom ñaari ñu tëb ne yonent bi ku la ko wax mu ne ko xale bii ñuy wax Zeyd ibnu Arqam mu ne ko mais kii xale la ñu dem songo Abdullah ibnu Ubay wax ko ko mu waat ci yàlla ne mu ngi doog dégg kàddu boobu xeetu wat yu nekk ñëw ci yonent bi raam ne ko nan laa lay waxe wax yu ñaaw yooyu waat ay xeetu waat yu yaatoo yaatu wane ne du moom ba yonent bi di yedd xale bi sax ne ko yu mel nii bul koy defati parce que euh, wax yu rëy nii waroo di ko nettali te amoo ci lu leer xale bi nag feebar ndax wax dëgg yàlla mag ak ndaw bu ñu werantee généralement ndaw la la ñuy jox euh, la ñuy la ñuy jox toor fekk na xale bi moo wax dëgg noonu mu nekkee nag xale bi di ñaan yàlla pour yàlla setal ko ci la yàlla yi wàcc suuratul munafiquun euh, fenloo ci abdullah ibnu ubay ibnu salul ba pare dëggal ci xale ji xale bi même citation bi Abdullah ibnu Ubay weddi woon yàlla jaarat ci ne ko iza jaaka al munafiqun naafiq yi bu ñëwatee ci yow xaalu dañ naan nashhadu seede nañ ne innaka la rasulullah ndawal yàlla effectivement mais xam na ne innaka la rasulu ndawam nga waaye wallahu yàlla yashhadu seede na te dëggal na ne innal munafiqin naafiq yooyu di wax ne yonante nga la kaasibun waxuñu dëgg seen dund yëpp waat la ay aymaanahum dañoo jàppe seen waat yooyu ñuy waat junnatan mu doon benn pakk boo xam ne mooy dox seen digganteeg nga mere leen ci lañ jàppe nag ba fa saddu ñuy wane wane wane gannaaw an sabilillah ci yoonu yàlla innahum dëgg-dëgg ñoom saa a ñaaw na maakaanu yaamaluun lañ daan def dañ koo tàmm nag daalika bi annahum amanu ndax ñoom dañ ne gëm nañ ci kaw suma kafaru ñu weddi ci xol yi fa tubia yàlla kasse ala qulubihim ci seen xol fa hum laa yafqahun duñ dégg mukk loo leen doon waar loo waar waar duñ déglu wa ida raaytahum boo leen gisee tujibuka da lay yéem ajsaamuhum seen yaram yaram yu rafet lañ yor njool ca kaw mën a solu di sol lu rafet waaye loolu bu mu la war de apparence bu rafet boobu wa in yaqulu bu ñu waxee tasma li qawlihim dañuy déglu seen wax ndax forte personnalité bi ñu amee tax na fu ñu waxee rek ñu déglu leen noonu noonu nag biti bi li muy rafet rafet biir ba dara nekku kannahum dañoo mel ni xusubun ay banta yoo xam ne mu musannadan dañ ko wéer banta ñu wéer ba pare max lekk biir bi di nga ko gis mu taxaw mais boo koy laal muy daan tiit gu ñu tiit nag ci seen bopp tax na yaxsibu na ñu ngi foog ne kulla soyxatin foo yuuxoo rek alayhim ci seen kaw ngay dal humul aduwu ñii ñooy say noon te ñu ngi ci biir jullit yi qaatalahum llahu yàlla na yàlla rey leen annaa yufakuuna fu ñu wëlbatiku yàlla mii rey nag ku mu ne yàlla la yàlla rey jëppi la moo tax ndax yàlla moom kenn échappe kenn mënu koo échappe mu ne wa ida qiila lahum boo leen ne taalaw kaay leen yastaghfir mu jéggalul leen rasulullahi bakkaar yi ngeen dëkke ak jaxase gi ngeen def ak di wër di fen def hypocrisie euh, euh, loolu dem leen yonent bi jéggalu leen la wow dañuy lem ruusahum seen loos yi wara ay tawum nga gis leen du nañuy wane gannaawahum mustakbiruun tey rëy rëylu am fierté seen bopp naan ñun ñooy dem di jéggalul kenn ñun duñ ko def yow yonent bi nag sawaawun alayhim benn la ci ñoom astaghfar lahum moo xam nga jéggalu leen am lam tastaghfir wala jéggaloo leen la yaxfir allahu lahum yàlla du leen jégal nga baalul leen ak nga ñàkk leen baalu que gëmuñu dara ndax inna allah la yahdi al qawma al yàlla du gindi nit ku saay-saay te ñii ay saay-saay lañ mu leeral nag li xale bi wax ne humul ladina yaquluuna ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy wax naan laa tunfiqu wax abdullah ibn ubay bi mu waxee loolu mer bi jeex jaax xeexee ak sinaan dane ñun ñoo ko def ñun ñii jël suñu alal di leen dundal ba ñu tol ni ñun tey bëgg ñu bëgg a fuuy suñu kaw bu ñu arrêté woon suñu loxo dinañ toog ba yàgg xiif rey leen ñu génn dëkk bi dem delluwaat ñibbi mag ñoom xanaa xamuñu ne wërsëg yàlla nee na xanaa ñoom xamuñu ne wërsëg yàllaa ko yore humul ladina mooy ñi nga xam ne yaquluuna ñu ngi naan seeni mbokk yi laa tunfiqu bu leen dépensé ti ala man inda rasulillahi ci ki ñi nekk ci yonent bi famille yonent bi ak ñi ko wër bu leen leen dépensé ak muhajirun bu leen leen jox lekk xataa yan faddu ba ñu xiif daw delluwaat seen dëkk nee leen walillahi xanaa xamuñu ne yàlla moom moom xazainu samawati wal ardi magasin wu asamaan ak suuf yëpp lu fi waay mos rek yàlla la ko mosal walakin al munafiqina waaye nafiq yooyu laa yafqahuna comprendre yu ñoom ñi naan ñooy dundal nit ñi man yàlla maa leen di dundal yamatuñ ci ci seen bon ñuy wax naan yaquluuna la in rajaana buñ delluwaatee ilal madinati ci madina la yuxrijanna la azzu minha al azallu ka fa gën a tedd muy mu jàppane moom la dana génne al azallu ka gën a torox ci dëkk ba xamuñu ne toroxte ak teddaange ci loxo yàlla la ne te yàlla moomu noonu moo tedd walillahi alizzatu yàlla rek am teddaanga wali rasulihi ak yonentam walil muminin ak jullit yi te moom bokkul ci ñoom kon kay moom moo gën a torox walakin al munafiqina waaye naafiqi yi laa yaalamuuna xamuñu yéen jullit yi nag bàyyi leen xel seen bopp te wattu ñu mel nii yaa ayyuha alladina amanu yéen jullit yi laa tulhikum bu mu leen yittil amwaalukum seen alal ji ngeen di daw di wuti koo gis mu ngi daw di wuti benn oto laa bëgg sama kër laa bëgg a yeggali sama lële laa bëgg pare ngay daw rek wala awlaadukum wala seeni doom a sama doom bi dama ko bëgg yóbbu Paris mu jàngi a bi Canada la bëgg a dem ngeen topp seen doom yeeg seen alal yi an zikri laa ba bàyyi jaamu yàlla bàyyi julli ci waxtu bàyyi zikr turu yàlla wa man yafal zalika ku topp yi ba bàyyi loolu wulaay ko mu xaasil ñi rek a perte ndax doom yooyu ngay daw ci seen avenir duñ la fekk ci bàmmeel pour dimbali la alal jooju ngay daw pour defar ko du la fekk ci bàmmeel wa anfiqu joxe leen alal ji nga xam ne mimma razaqkumullah moom la leen yàlla wërsëgal min qabli an yaati ahadakum mawtu lu jëkk ngeen di dee parce que dee ku mu gane si ci yéen même boo yoroon ay milliards doo ko mën a génne pour dépenser ko ci yoonu yoon ndax day weesu waa jooju tudd ci lalu sukuraat nag muy reccu fa yaqulu mu naan rabbi law laa axartani tee nga moo woon a yeexe tuuti rek ilaa ajalin qarib pour quatre jours trois jours ma dem ci banque ba retiré alal jox ko masaakin yi yóbbu ko ci jàkk bi fa asaddaqa ma saraxe wa akun min as-salihin ma def lu baax yàlla ne déedéet c'est trop tard wala ñu axira allahu nafsan ida jaa ajaluha yàlla du du yéexe benn bakkan bu waxtoom jotee seconde bi nga war a dee minute bi nga war a dee waxtu wi nga war a dee mënoo fexe fexe ba échappé ko loolu mënul nekk ila jaa ajaluha ah, wallahu yàlla xabir bima taamaluun li ngeen di def yëpp mu ngi ci ne jàkka di xool Zayd ibn Arqam ci la ko yonent bi woowee ba mu ñëw mu ne kaa yàlla dëggal na la ñu jàng ayat yi Abdullah ibn Ubay rus bay bëgg a am nag benn coow lu fa xew Omar ibn al-Khattab ne yonent bi jox ma ndigal ma dem mm, rey góor gi ñu noppalu yonent bi ne ëpp naa def parce que boo ko reyee ay bokkam dañuy jug muy xasraj ndax nit nag nu mu mel ku ko laal ay bokkam yëpp euh, koñ bi ki fi dàq sàcc ñu koy wër di ko yóbbu gendarmerie police euh, loo ko xamal rek famem famem papam ak yaayam xamal na ko fukkam xamal na ko fukkam dañ ko dul wax rek nag dañ ko dul wax ñu te mel noonu dafay dafay faral mbokkam doonte nekkul ci dëgg yeneen bi nekk boo ko reyee jàmm du amati Saad ibnu Ubaada dem ci moom sëpp ko ndax moom mooy kilifa euh, famem sëpp ko xas ka ba mu ràpp euh, yàlla dogal góor gi ne yegg rek ñu xas ka xas ñi mu àndal ne ko li gis ci àdduna mooy mag muy fen mag muy fen moo xam ne nii boo gisee kanamam mu ngi rafet lool boo gisee yére yi muy sol yére yu rafet la lool apparence am boo ko gisee ak bijaaw bu rafet bi doo mën a nangu de kii kuy fen la waaye nafiq loolu dérangé wu ko te itam gàcce du leen sonal gàcce gàcce goo xam ne bu ko gor déggoon dee ñoom dañ koy dégg raay seen dox dem pare nañ yal na yàlla musal ñu ci jikko yu mel noonu bi jaay seydi wujud sallallahu alayhi wa loolu nag bi mu xewee yonent bi frustré wu lool mer lool bañ nag ñu toog foofu di waxtaan ak a werante muy bëgg a indiwaat yeneen situation mu ne arraxiil arraxiil nañu ñibbi mu jàpp otage yi jàpp tabaarakallahu mbooloo mi di dem bi mbooloo mi nag déggee ne yonent bi sallallahu alayhi wa takk na kenn ci otage yi muy juwayriyatu muy barratu boobu bintu xaaris euh, da dafa tax jullit yëpp ne ñoom jaayante nañ ak seen borom yonent bi ñoom du ñu jàpp ay gorom di ko jàmloo di ko def otage ñoom ñëpp ñu bàyyi seeni otage kenn ku ne delloowaat leen lu dul alal diñ jëloon ci ñoom ñu delloowaat leen lu mat juróom ñaari téeméeri góor ak seeni jigéen ñu bàyyi leen ngir juwayriyatu boobu nga xam ne umul muminin la tey moo tax sittuna Aïcha da daan wax ne ma raaytu imraatan abraku min qawmiha min juwayriyatu binti xaaris Aïcha nee na musumaa gis jigéen ju ëpp barke ci aw nitam maanaam bu am barke bu am barke ba aw nitam jariñoo barkeem ba mel ni juwayriyatu ndax ba ko yonent bi takkee fekkoon na dëkkam yëpp famem yëpp trubem yëpp dañ leen jàppoon waaye ci barkeem ñoom ñëpp goreel nañ leen ngir barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaye looloo war a mën a am ndax nit rus na di jaamuloo koo xam ne ni sëram mu ngi kër yonent bi sallallahu alayhi wa di fa sëy te yonent bi képp ku mu takk rek ci soxna eh, yaay ngay doon ci jullit yëpp eh, téere yi nee nañu xaaris bi mujjoon a dajale xare bi bi mu déggee ne yonent bi jël na doomam dane mais kii du nit yow koo xam ne maa ngi daje pour rey ko moom mu jekku ma waroon a rey sama doom di ko takk pour teral ko dëgg dëgg kii du nit ci la def nag délégation gannaaw bi yonent bi demee ñibbi mu ñëw tuub moom moom xaaris ibnu abi dirar al mustaliqi tuub ak kuréel ga mu àndal nga gis ne kon yonent bi stratégie am bari na soxna su mu takk nga foog ne daf ko takk ngir bari soxna fekk déedéet dafa am lu muy lijjanti ndax ki la jàppe noonu ki la jàppe noon nga takk tabaarakallahu doomam daf ci daf dina ci xoolaat boppam xam ne ndekete tabaarakallahu la mu foogoon demewul noonu te noonam bi gën a acharné wu ci noonam yi mooy Abu Sufyan tey jii Abu Sufyan ci kanam yonent bi sallallahu alayhi dina takkaat doomam bu ñuy wax Ramlatu euh, bintu euh, Saxr muy Abi bintu Abi euh, ñuy ñibbisi nag yonent bi ne bu kenn noppalooti enchaîné nag voyage bi ñuy daw guddi di daw bëccëg di daw guddi di daw bëccëg ba war a jege si nag Madina boobu nit ñi sonn nañ daggale nañ yonent bi li mu doon bañ mooy ñu am temps wu toog di waxtaane ci actualité yii fi jot a xew ci Abdullah ibn Ubay te borom bi mbokk la li ëpp ci mbooloo mi ay mbokkam lañ kon wax na fi ay wax yu ñaaw ñuy bañ ñenn ñi xëy na sax yëg ko te bu ñu commencé camper rek campement bi dina tax kii dugg fii kii dem fële kii wax fële kii wax fële yonent bi enchaîné ndox bi bi ñuy ñëw bay dese tuuti ci Madina nag la leen digal ñu wàcc campé pour noppalu tuuti après mën a dugg ci Madina bi euh, ci dëkk ba ndax xew-xew bu amee ci biir dëkk dina neex a lijjanti waaye bu amee ci àll ba la mu la muy yàq day bari noonu nag ñu nekk fa Aïcha euh, nee na ñu campé toog fa waaye fañ dal amul ndox Euh, fa ñu dal amul ndox ñu toog fa ba war a euh, jug Aïcha nee na bi ñu bi rixla bi waree jug ma soxlawoon sama bopp maanaam bëgg a faj aajo nee na mu rocciku ci xëw dëj bi bi mu nekkoon xëw dëj benn néeg bu ndaw la bu ñuy tegal gëléem bi ci def jigéen pour poussière beeg coono yeeg yu mel noonu bañ ko dal bu ko defee dañuy jël néeg bu ndaw boobu takk ko ci gëléem bi jigéen ji nag toog ci biir ñu di ko omat loolu lañ defaloon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp buñ daan tukki loolu nag nee na ci la rocciku génne dem ndekete ki ko doon giide gisul Aïcha bi muy génne mu dem bi mu fajee aajom bay waaj a oññeku ni muy waaxoo pour mbooloo mi bañ koo raw nee na mu fakkastaloo caxam caxam dagg bi caqa bi daggee daf ay per tasaaroo te caqa bi moom moomu ko asma bintu abi bakrin mi magam moo ko moom ah nee na mu ne caxu jàmbur dañ ma ko abal kon du ma bàyyi nii di dem mu jël tempsam nag di ko for jël tempsam di ko for ndekete yonent bi wax na arraxiil arraxiil nañ gontu nañ gont ñu préparé bagage yëpp ki nga xam ne moo amewoon woon géléemu Aïcha boobu euh, dàq géléem gi mu jóg Aïcha nee na comme boobu dama tuuti woon aw ma yaram ñoom du ñu mën a xam ndax maa ngi ci biir hawdaj bi wala nekkuma ci Euh, ñu dàq ka dem te yëguñu ne moom mu ngi ci àll bi ñu doxee lu sori nee na mu dajale li muy dajale pare ñëw nag bi mu ñëwee ba fa mu jóge woon fekk fa dara mu fekk fa àllu kese mu wax inna lillahi wa waaye Aïcha xale la waaye dafa am xel mu ne nit ko ne daal boo ànd ak mbooloo ba réer fa nga réeree bul fa jóge parce bés boo fa jógee ku lay seet si du la du la fa mën a fekkaat kon toogal foofu xale bu jigéen la jamono yooyu daanaka quatorze ans rek lay am maximum quinze ans euh, mu mu toog foofu ci àll bi ndeysaan muuroo mël fam toog mais nee na comme dafa sonn ndax euh, stress beeg coono yeeg yëpp ñeen dafa toog rek nelaw mais kooku dal na xel de àll bu mel noonu nga toog fa yow rek di jigéen bu pare mën a nelaw loolu xam nga yàllaa ko def ngir dalal xelam waaye dafa bokkoon ci stratégie yonent bi bu masaan di tukki dafa am gawar gu muy yabal ne ko toppal suñu gannaaw fu ñu xëyee yow na nga fa gonte fu ñu gontee yow nanga xëyee foofu toppal suñu gannaaw rek bu nga defee lu ñu fàtte ci gannaaw di nga ko mën a jëlaale indil ñu ko bi yoon nag Safwan Safwan ku ñuy wax Safwan ibnul Muattal moom la sant woon liggéey boobu Safwan moomu nag fu yonent bi dal suba ba kite fa moom dana fa ñëw ci ngoon ga xool yañ fa fàtte mu dajale ko noonu lay def ba ñëw nag fii nii ci yoon wi gis Aïcha maanaam gis lu tëdd mu wàcc giléem naan lee nit la wala du nit nit la wala du nit nee bi muy jege si di jege si di jege si ba mën a xàmmee kanamu nit la gis kanamu ne effectivement kii nit la mais xàmmee na ko ndax avant ñuy wàcc xijaab ndax léegi wàcce nañ xijaab ci at mi passé wala at mi ñu nekk nga xam ne ci lañ nekk muy sanatu euh, arbaa jëm xams Euh, nee na mais woon na ko laata ñuy wàcc xijaab nee na mu seen ko muy Aïcha nee mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wax ka ca kaw nag Aïcha nee na baat boobu mooma yi nee na mën a bërit yeewu xool ko muy sofaan xam naa ko moom it xam na ma nee na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nag tegaatu ci baat ba fii may wax ak yow ndax góor ak jigéen du ñu waxante ci àll nee na daal lenn la def mooy wàcc giléemam ommat ko ba ci man wan ma gannaaw ma fexe ba yéeg ci giléem gi mu jublu kanamu giléem gi di ko jëmma ommat jëm a Munawwara nee na nag mu waaxu bu baax bi mu ñëwee ba dernier campement bi yonent bi campé woon pour dugg Madina nag fa ca la fa agsi ci digg bëccëg fekk ñëpp campé toog di waxtaan mbooloo mi seen ko muy ñëw ak ki kay ombatal géléem ñu naan keekal la keekal la bi mu leeree ne Aïcha la nit ñi ne ah, xëy na dafa am lu mu doon dox xëy na nangam waaye Abdullah ibnu Ubay ibnu Ummi Maktum Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul moom moo ne waaw yéen mbooloo mi gis ngeen li may gis te mag la de gàcce gi gàcce gi mu def léegi rek Zeyd ibnu Arqam wax ko mu ngi rusloo ñëpp ak kàddu gu ñaaw gi mu waxoon mu ngi rusloo ñëpp mu ñàkkaat jom naan ndax gis ngeen li ma gis ñu ne ko lan nga gis mu ne mais ngóor see ci àll bi ak ndaw sii ci àll bi ñoom ñaar rekk ah boo leen ci xalaatul de man xalaat naa ci benn baat nag bu gàtt la wax innahu lam taslam minha wa innaha lam taslam minhu loolu rek la wax ñoom ñaar ñii daal kii muccul ci kii kii muccul ci kii loolu la wax xaxataay ree gaayam yi nag jël wax yi mooy nafiq yi di ko paasante di ko paasante kaddu gu ñaaw la ñu wax jiiñ sittuna Aïcha radiyallahu anha kaddu gu ñaaw gu mel noonu mais moom nee na yëgu ci dara mu ànd ak euh, euh, yonent bi yonent bi nekk foo nekkoon mu wax ko li xew mu ne ko ah yow loolu yëguñu ko woon wu ko coono après ñu préparé euh, temps boobu ñu toog nag foofu doon leen xaar di xaar Aïcha ndax bi ñuy yëg ne Aïcha ñëwagul boobu fekk ne ñu ngi sori ñu campe foofu foofu ñu campe nag moo amul ndox ñu toog fa ab diir ba nit ñi am janaaba amuñu ndox ndax ndox mi ñu doon tukkee yëpp consommé nañ ko amuñu ndox ñenn ñi amuñu lu ñu jàppoo ñu nekk ci yooyu situation mu tar lool julli di jot te xamuñu lu ñuy def jibril wàcc ne yàlla nee na wa in lam tajidu ma an boo leen amatul ndox fa tayammamu na ngeen tiim aaya tayammum foofu la wàccee mooy aayab tiim fa tayammamu na ngeen jublu sa'idan tayyiban benn pàkk bu lab famsahu ngeen masaa bi wujuhikum wa aydikum seeni kanam ak seeni euh, loxo wa in kuntum junuban fattaharu euh, lii keroog la xew yàlla ne may naa leen léegi yombal boo leen amatul ndox ci janaaba ak laab gu ndaw muy toj gu mag ak gu ndaw na ngeen dem rek ci suuf ndax ci suuf laa leen bindee ngeen raay ko bu ko defee euh, raay seen kanam ak seeni loxo taxawal julli may naa leen loolu gis nga yàlla nattu bu la ko tegee waaye ci biir natt ba ci ngay amee xéewal yonent bi mu ngi toog di xaar soxna Aïcha mais ci xaar googu moo jur ñun jullit yi ba yowmal qiyaamati ñu am ci yombal ci barke Aïcha moomu ñu doon xaar te moo di aayay tiim foo amee ngantu ndox rek mën ngaa tiim moo xam nag feebar la wala yu mel noonu comme ni ko kutubu fiqh yi leerale lii mu ngi xew ci at mii ci bani mustaliq muy gazwatu Muraysiya Aysa nee nañu dugg ci dëkk bi ñëpp sonn nañ noppalu ndekete écho bi mu ngi daw Aysa ak Safwan Aysa ak Safwan moo tax jigéen lu yàq deram dafa yomb boo gisee yàlla di tere jigéen yu bari ndax li góor di def yépp ci wàllu liberté bu ko jigéen defee deram day yàqu te lañuy ñuy yàqee deram sa xëy na mën na ko bañ a def ñu amee ko nag ba yonent bi jot ci bi ci yonent bi jotee seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel yonent bi sax du lum gëm waaye wax dëgg yàlla yabaate am na ku toll ni soxnaam moom dëkk bi am permis bay wër di wax naan def na lii ak def na lii euh, ruslu na torop ci deram yonent bi nag waxul dara Aïcha waaye metti na ko ndax dafa doon gor doon ku baax te deram mu ngi commencé yàqu ndax deru soxnaam bu yàqoo rek moom deram moo yàqu te comme nit du mat sañul jël position ne du moom du moom ndax leneen bu feeñee wala yàlla feeñal leneen googu gàcce du ko àttan yeneen ti fi jàmp jàpp ci jàmburam benn semaine ñaari semaine ñetti semaine yëf yi yokku ñeenti semaine yëf yi yokku juróomi semaine ba juróom benneelu semaine bi yàlla ci lay soog a addu te mënoon na ko faj ca bés ba mais yàlla daf ci bëgg a jàngal jullit yi bëgg ci jàngal yonent bi bu rumeur ñëwatee nan lañ koy gérer yonent bi nag mbir mi metti ko ba mujj gi bu jugee ci jàkk ji dugg néegu Aïcha da koy nuyu nuyu bu gàtt toog ba yàgg mu génn dem ci yeneen soxnaam Aïcha nee na ma seetlu bi ma ñëwee dama tooy ma ma soj soj bu metti feebar ma seetlu daal li ma seetlu mooy yonent bi bu boo masaana feebar dafa may nabbi nabbee di ma nax waaye bii yoon day jóge ci jàkk ji rek ñëw nuyu ma nuyu bu sévère ne ma kayfa fa tiikum naka na nga def am na nga def mais du du ci tegaat leneen ba ma dem nag ba xam ne jaadootul ma woo ko ba mu ñëw ma ne ko tee nga mu woon jox ndigal ma dem ci umu rawmaan sama yaay bu ko defee mu taxaw ma ba ma wér ma soog a ñëw comme kër gi nekkuma fekk kenn yonent bi nekk waaw baax na Aysa bàyyi ba guddi mu jël quelque sac maanaam benn sac def ci lenn ci ay yéreem ànd ak xale bu bu rëy da dem yu ñëwee ci yaayam yaay ji dalal ko ne ko man dama feebar mu ne ko effectivement tukki bi la ñu nekk fa ab diir Aysa nee na yëguma li xew ndekete dëkk bi man la ñuy xëye di ci gonte abu ayub al ansaari yi toog ak soxnaam soxnaam ne ko waaye yëg nga lu rëy li xew mu ne ko lan moo xew mu ne ko ah Aysa de lañ tuumaal nee nañ lii nee nañ lii nee nañ lii abu ayub mer ne dafa am lu ma lay laaj umu ayub mu ne ko ah mu ne ko loolu ñu jiiñ Aysa est-ce yow di ko def mu ne ko mukk subhaanallah man kay ëpp naa di def lool mu ne ko maa ngi wat ci yàlla ne yow Aïcha moo la gën comme yow jombal nga ko sa bopp nag war ngaa xam ne kon moom moo ko gën a jombal boppam mu ne ko te jëkkëru Aïcha moo gën sa jëkkër kon war ngaa xam ne loolu du fa xew kooku noonu la ko jëkkëram freiné mu noppi ñeneen ñi nag di wax am na ci ku ñuy wax Aïcha dafa am ay wëjj wëjj yi ne patt waxuñu ci waaye rakku wëjjam muy Zeynabu bintu Jaxsin rakkam bu ñuy wax Xamnatu bintu Jaxsin doonoon soxna euh, Mus'ab ibnu Umayr xëy na sax bi mu ténjee ba summi yàggul kooku nag moo jël wax ji pour jàppale magam gis na ne magam wujj bi gën a sonal mooy Aïcha ndax dafa am doole mu bëggoon def benn influence pour daal ñu bàyyi Aïcha waaye fee wujjam maanaam magam gën a mën a yaatu ci kër gi xamnatu boobu wax na ci gauche edroit droite yonent bi nag jaxle kàddu yee ngi gën a bari benn bés mu ñëw ci jàkk ji ne allaha allaha laa tuzuni fi ashaabi fa man za allazi yuzini fi ashaabi yéen jullit yi bu leen may lor fi ashaabi wa fi ahli ci sama njaboot ak sama famille vraiment yéen a ngi may lor ci sama famille parce que tuuma yi xew dëkk bee ko def rumeur yi xew yëpp dëkk bi ñoo ko def intoxication ak désinformation yi xew yëpp dëkk bee ko def te xam nañ kan la dignitaire la boo xam kenn sañu ko tudd waaye xam nañ ko loolu nag daf ko wax ak tristesse lay san Saad ibnu euh, euh, Muaz jug taxaw naka yont yàlla muhammad coono bii ngay dunde ak stress bi yéenew ñu la ko barki dee ma nga jóge ci xare ñëw ñu teg la bii coono lenn lañ lay wax ki nga tuumaal bu dee moom moo la tooñ ci sa njaboot ne wax ñu turam rek ñun ñu daje dem rey ko ndax du ñu nangu kenn ku yàq sa vie privée loolu saadu ibn Muaz moo ko wax te moom mooy Sayyidu Aws ci saa si Saad ibn Ubaada ak li muy jàmbaar jàmbaar jug taxaw ne waxoo dëgg ne ne Saad ibn Muaz waxoo dëgg ndax ñoom ne naa la ñaari tribu yoo xam ne ay wujj lañ ne ko waxoo dëgg danga xam ne ki wax wax ji nekkul ci sa famille moo tax nga koy wax waaye xam nga ne bu bokkoon ci awsu doo waxee nii waxoo dëgg doo doo dal ci kawam Saad ibn uh, uh, uh, Muaz jugaat taxaw ne kon yow mbir mi leer na kon ki wax wax ji muy ki fen fen yi ci seen famille la bokk te ñoom ñëpp ñu ngi junj Abdullahi ibnu Ubay ibnu Ummi Maktum Abdullahi ibnu Ubay boobu laata muy dugg ci dëkk bi te moom moo ne woon lañ rajaana ilal madinati la yaxrujanna la azzu min haladal doomam da ko toroxal parce doomam bu ñuy wax Abdullahi ibnu abdullahi ibnu ubay ibnu salul dafa taxaw ci buntu dëkk bi ci jaaseem ne maa ngi xaar ba sama baay romb ma fi moom baayam naafiq la moom mu doon jullit bu baax li olof di wax guy dina jur xatax nekk fa ab diir ba yàgg abdullahi di ñëw mu ne ko pàpp mu naa mu ne ko doo dugg ci dëkk bi de doo dugg ci dëkk bi boo ma fi rombee sama jaasi ji dina cor sa bat lu dul yonent bi nga wax ne moom ngay génne moom mooy lay jox ndigal nga dugg téye ko nag nit ñi di dugg par benn di dugg par benn ba jeex yonent bi mu ngi woon ci gannaaw bi mu ñëwee ne ko lii lan la mu ne ko góor gii moo waxoon ne dalay lay génne ci dëkk bi ma bëggoon la wan ne yow boo ko génnul ci dëkk bi du génne d'ailleurs boo ko joxul ndigal sax du dugg yonent bi ree xam ne lam bëggoon faju na bu dee doomu góor gi ci boppam moo def nii góor gi ci góor gi foogoon na dëkk bi yëpp ndigalam lañuy ñuy déglu am na gàcc bu rëy mu ne Abdoulaye bàyyi ko mu dugg ci la koy soog a bàyyi mu dugg loolu nag metti Abdoulaye muy baay bi ndax ni ko Abdoulaye doomam def rusloo na ko mais teewul itam moo ko yaatal looloo tax kii di ko défendre muy Saad ibnu Ubaada nga xam ne ñoo bokk benn famille te moom mooy kilifa gi naan Saad ibnu boo xamoon na ci sa famille la bokk aw su doo waxee nii euh, ñu bëgg xeexandoo ci jàkk ji xeexante nañ fa sax ba kenn ku ne tegante dënn loolu gën a méttiwaat yenent bi communauté bii nga xam ne ràbboon na leen ba ñu doon benn kenn waxatul awsu kenn waxatul xasraj commencé nañoo bëgg a xeex non seulement ñu ngi xeex mais ci biir jàkk ji te ban cause lu ñu wax ju ñaaw ju ñu wax soxna si yan si yàlla muhammad mu jur coow lii yonent bi nag euh, gën a am lu leen jaaxal ne leen dal leen dal leen dal leen dal leen wàcc mihrab bi dugg néegam sàngu xol bi naqari lool mu toog ab diir woolu ali ibnu abi talib rakkam ni ko waa ali loo xam ci li xew mu ne góor gi de man yaa ma yar yow yaa ma yar lu ma xam yow la mais melokaan bii ma la gisee ak stress bii ak jaaxle jaaxle gii nga nekk man di wax dëgg yàlla gëm naa ne yàlla tegu la ko yàlla tegu la ko de ndax yàlla dala bëgg dala sopp bu fekkee nag jigéen moo la ko nar a teg mais du problème ndax jigéen moom ni mu daganee nga takk ko noonu la daganee nga wàcc ko mais yàlla mi nga xam ne sa bànneex lay topp yow nga bëgg a topp xam ne ni mais man duma ci tranché xaw ma moom la xaw ma du moom mais na nga oolu burayda burayda mooy domestique bi nga xam ne nii mook Aïcha ñoo nekk nga laaj ko bu fekkee xam ne ci jikko Aïcha ay bases moom dana la leeral euh, yonent bi ne ko yabal naa la ci moom mu dem nag ci Burayda oo ko mu ñëw mu ne ko loo xam ci Aïcha mu nekk ci lan noonu mu nekk ko yiñ koy tuumal ndàngam nangam Burayda ne ah man de lenn laa xam ci moom mooy xale la benn sikk rek laa ko gisal moo di Aïcha jikko xale moo ne ci moom léeg-léeg sax dana mooñ mooñ dina ko mooñ war koo tey toog di nelaw nelaw ci ci mooñ bi ba xar yi ñëw lekk ka daw xam nga <laughs> yëfu xale la boobu sikka daal laa ko xamal ali ibnu abi taalib nag dóor bu rëy da dóor ko dóor yu metti nekk nag ma wax dëgg gi mu nekk lii laa xam ci moom bi mu xamee ne nag wax na ko dëgg gi ci la dem Aïcha nag dégg ne ali ibnu abi taalib ginnaaw gi def na loolu mu jàppal ko bi coow li nag bare benn bés Aïcha nee na mu ànd ak ku ñuy wax ummu mistah nee naa la ñoom guddi la ñuy génne ndax seen dëkk yi amul woon toilette dañuy bàyyi ba après timis jigéen ñi génne dem faji aajo Aïcha nee na feebar bi sonal ma ba bés benn guddi gannaaw timis ma oolu ummu mistah nekk kaay nga gunge ma ma doxantu nee mu gunge ko ñuy dox di dox di dox bay waaj a génn dëkk bi moom bi mu fakkastalu bi mu fakkastaloo dafa ne taisa mistax ibnu asad ñun dañ tàmm ku fakkastalu di nga wax dara am na yoo xam ne buñ fakkastaloo saaga la ñuy def am na yoo xam ne tur yàlla la tudd mais kooku dafa fakkastalu ba pare saaga benn doomam mooy taisa yàlla na torox mistah ibnu asasa loolu la wax aïcha ne que ah atasubanna rajulan shahida badran ndax da dangay da ngay da koo xam ne mas naa fekke badar ndax badar ña ko fekke ñëpp àjjana directement lañ jëm comme niñ ko weesoo léegi nag ummu mistah ci la ne xanaa kon yëgoo li muy wax mu ne ko lan lay wax mu ne ko li muy wax ci yow déggoo ko mu ne ko déedéet mu ne ko mais yow dëkk bi kon yow rumeur yi ñuy wax ci yow yëpp déggoo ko mu ne déedéet Aïcha nag ci la ko ummu mi sax nettalee depuis gazwatu bani mustaliq muy Muraysiya la fa xew ak digganteem ak Safwaan ak ya ca xew Aïcha nee na nag ma feebar nee na yoon wi ma doon dox sax samay tànk dafa damm mënatuma dem aajo bi ma doon jéem a faji ji fajuma ko dama mujj def retour commencé jooy na di jooy waaxu waaxu bu dëgër ba dugg sama kër papa muy Aboubacar ak Omar euh, ak euh, Umu Rawman kott sama yaay nekk ko waaw yaay dégg nga li dëkk bi wax ci man mu ne ko waaw dégg naa ko mu ne ko yëgoon nga ko kon mu ne ko bu yàgg mu ne ko waaw papa yëgoon nga ko mu ne ko bu yàgg mu ne ko waaw yéen nan ngeen mën a yëge loolu waxu leen ma ko boobu ba tey te di ma xool nii ñu ne euh, euh, yaay ji ne ko Aïcha defal ndànk xale bu jigéen bu rafete ni yow jongee ni yow baaxe ni yow xam nga ne moo moosin du am jëkkër ju baaxe ni yont yàlla muhammad di fa sëy nit ñi may ko jàmm faw ñu teg ko baatu gannaaw loolu moo tax rek waxuñu la ko booleeg da nga feebar mu ne déedéet loolu nan la mën a amee te euh, waxu leen ma ko xam nga nit buñ ko tuumalee lu mu deful da koy metti waaye ab bandi loo ko wax day rëy ne leen gisa ne gisagoo dara sax donte defu ko sax mais danaan gisagoo dara mais gor boo ko tuumalee day feebar Aysa nee samay nelaw dem ma boole feebar bi ma nekkoon ak bu bu ko raw bi may dund tey ma ne ci loolu di ko subir di ko subir benn bés yonent bi ñëw fa ne Aboubacar kayfa tiikum ana seen kooku nee na bi mu waxee lool ma xam ne kon moom gëm na ko téere yi ñu ngi wax ne yonent bi ñi naan euh, dañ ko daan inspiré rek ji euh, maanaam day toog ba yàgg rek euh, maanaam inventé ay waxam téere yi ne nañu xaadisatul ifki moo koy wet ndax ku ñu tuumaal soxna sa soxna bi ci mooy soxna si nga gën a bëgg ci sa soxna yi gën gën koo jege ba ñëpp dina ko fiire nattu bi dal la nga xaw a mel ni ku dof stressé wu te mënoo résoudre problème bi war nañoo xam ne bu doon yow yaay waxal sa bopp di nga wax dëgg la dëgg yàlla loolu ci jublu daf leen bëgg a wan ne kii nit la comme yéen yu waxaa ile ya man maa koy inspiré rek lii muy wuuteeg yéen koo xam ne soxna am tuumal nañ ko te mënul xam ndax dëgg laam du dëgg xam nga yàlla moo def loolu yàlla nag toog cinquante jours yoo xam ne agiru te loolu daawul am ndax jibril daawu fa xëy daan daan na xëy mbaa mu gont mbaa bés bi mu ñëw miraaran toog nañ nag cinquante jours yoo xam ne nii même bu jibril di ñëw sax du wax ci loolu yoon si mënul nelaw guddi mënul nelaw bëccëg bul foog ne nag bëgg Aïcha ba dof moo tax déedéet der bu yàqu bi parce que xam nga limaanu raatib buy dem ci dëkk bi naan buleen leen njaaloo bu njaaloo di ko tere di indi ay aaya ñu jekki-jekki ne doomam bu jigéen ëmb te amul doom euh, amul jëkkër kooku du feebar ndax cause bi muy woote daano gi mu daanoo ci këram moo koy feebar euh, yonte yàlla Muhammad nekk ci boobu tiis nekk ci boobu tiis ba Aïcha ne moo tax nit boo gëmee yàlla dara du la jaaxal mu ne fii yàlla rek a fi ne yàlla rek a fi ne léegi romb na yonent bi ne yàlla fa sabrun jamil wallahu almustaanu amma tasifun dafa wax ne man de duma wax lu dul nee na dafa tiit ak boobu nekk naa xale ba xamatuma yàquba nee na du ma wax lu dul li baayu yuusufa waxoon baayu yuusufa yaquba la tudda mais nee na boobu xale laa jàppuma tur bi ñaareel bi mooy njàqare gi ma nekk yuusuf ba mu réeree baay bi dafa ne fa sabrun jamil nañu muñ ndax wallahu mustaanu ama alaama tasifun jafe-jafe boo nekk nga muñ ko te yàlla tax wala nga wax xasbuna allahu wa ni'mal wakil nga wala wala nga ne la hawla wala quwwata illa billah te gëm ko sax ci loolu lu problème ba métti metti day dekantew mu ne fa sabrun jamin wallahu musta'an ala ma tasifun nee na ba benn guddi yonent bi ñëw fa bii yoon nag dafa dafa accéléré cadence bi ba cinquante jours bari na bi mu jógee mustaliq ba fii may wax ak yow nelawul guddi benn guddi nag mu ñëw fa oolu Aboubacar bakar di jooy rek Aboubacar di jooy Aboubacar li nga tax di jooy mooy xam na ne doomam du def musiba waaye xam na ne yonent bi itam du wax lu dul dëgg bés bu lii sottee Aboubacar mën na cee rey boppam te bi ci des mooy sagam yëpp yëpp yëpp moo di liñ koy wax nekk yaay goro yonent bi mu loolooy sagam Aboubacar feebar Umu Rawman la même chose yonent bi ñëw fa guddi sallallahu alayhi wa sallam ñoom jàmmasanteeg ñoom ne Aysa laa bëgg a waxtaanal ñu oolu ko nekk kaay uy sang nee na ma jug arrêté jooy yi ma doon jooy toog mu ne ma yaa Aysa fa in taalamiina annaki almamti zanban aw isman fa tuubu fa tuubi ila allah wa illa fa sayakshifu llahu ma xalla biki Aïcha ñaar de laa la doon wax si toogaay bi yàgg na te sa feebar bi yàgg na te coow li bari na ci dëkk bi yow nag yaa ko mën a arrêté dama la doon laaj nag ne bu fekkee xamal nga sa bopp ndax nit ku ne moo gën a xam boppam ne da def dara maa ngi lay seedal ne nit matul nit matul reconnaître que te nga tuub jéggalu yàlla problème bi jeex bu fekkee nag defoo dara toogal yàlla dina la feeñal Aïcha nee na jooy yi ma doon jooy nee na nee na mettit bu ma amoon dafa gën a yokk ndekete yonent bi ba fii may wax ak yow amul confiance ci ne defuma lii neena mu ne kon man du ma waxatee kii mu ne mu ne Aboubacar tontul Aïcha mu ne Aïcha ne baayam bàyyi tontul ma mu ne ko doom lu may wax xaw ma lu may wax mu ne yaay tontul ma mu ne ko xaw ma lu may wax mu ne ko mënit mënuma wax ndax bu ma waxee ne defuma ko doo leen ma gëm yéen bëgg yonent bi itam ak bëgg mu kontaan du tax ma ne maa ko def pour noppal ko déedéet kon nag yàllaa fi des xasbunallahu wa ni'mal wakil nee na lii nag la wax ma commencé jooy jekki-jekki gis yonent bi commencé ñaq sallallahu alayhi wa xam nga kii mooy yonent pire koo xam ne dix minutes yi yaa ngi bëgg a dee ndax stress mu jekki-jekki commencé ñaq ma xam ne am na luy wàcc ci moom ndax bu amee luy wàcc ci moom rek danga gis poids bi yokk mu gën a am yaram gën a leer ba pare di ñaq rek di teg di ñaq di teg waxatul nag bu doon tey moo xaw a gën a jege ku ku li ñuy wax ku daanu crise kuy daanu crise mu ne tekk di baj baji di baj baj ba yàgg ree ree yonent bi réewu yonent bi nag moo daxaloo gis gis naa ree nag gis naa ree ah nekk ab shiri ya Aïcha yow Aïcha bégal kontaanal santal sa borom Aïcha nee na mosuma woon a foog ne yàlla dina ma setalee ci wàcc alquran dama foogoon rek day yabal jibril jibril ne ko rek euh, defu ko jeex na waaye mu ne aoudu billahi min alshaitan irajim bismillahi arrahmani irrahim inna alladina jaa'u bil ifki usbatun minkum la taxsibuhu charran lakum bal huwa xayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim lawlaa iz sami'tumuhu dhanna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi anfusihim khayran wa qaaluu haadha ifkun mubiin lawlaa jaa'u alayhi bi arbaati shuhadaa fa in lam ya'tuu bi shuhadaa'i fa ulaa'ika inda allahi humul kaadibuun wa lawlaa fadlu llahi alaykum wa rahmatuhu fi dunyaa wal aaxirati lamassakum fiimaa afadtum fiihi azaabun aziim إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم منكم من أحد ولا أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم lii éducation bu yàlla joxe la jibril bi mu wàccee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaq dafa nekk yaa Aïcha ihmadillah santal sa borom subhanahu wa taala faqad barra akilla yàlla setal na la aboubacar ne ko ak yaayam quumi ila rasulillah fatadiri jógal nga dem ci yonent bi nga jéggalu ko sant ko mu ne ko mukk du jéggalu yonent bi yàlla bi ma setal laay jéggalu duma ma du ma jéggalu yonent bi du ma sant yonent bi yàlla bi ma setal laay sant moo tax maa ngi lay wax ne la koo yaakaar ku dul yàlla bés ji nga xam ne yàlla féete na la fu la kooku mënu la féete yàlla Muhammad mi ëpp ñëpp doole tollu toog na lu mat cinquante jours yoo xam ne daanaka mënta xool bu baax Aïcha mi mu gën a bëgg ndax nattu yàlla te yàlla moo ko setal yonent bi nag sant ci yàlla ci ñaar mooy li ñu wax bu amoon nderam dina yàqu moom nderu këram yàqu crédibilité am waaye yàlla du def loolu yàlla ne man yonent bi maa ngi wax ne inna allazina ñi nga xam ne jaa u ñoo indi bin bil ifki baatu ifku ci arab mooy as-sarf mooy lu ñu lu ñu façonné di ko façonné di ko façonné ba rafetal ko moom waxul sax bil kisi bi ci fen déedéet ifk mooy luñ créé yàlla ne na inna allazina jaa u bil ifki li nga ñi nga xam ne dañoo créer ay mbir ci ay information usbatun minkum kuréel la gu nekk ci yéen jullit yi ñu ngi ci yéen mais duñu ay jullit mais nekk te xew-xew bii li muy triste triste dafa baax ndeke mm-hmm. a ah, feeñal na yu bari kon laa tax sa buuxu bu leen foog ne lii xew charran lakum ay la déedéet bal huwa xayrun lakum euh, yiw la parce que déjà wane na grandeur u ange wane na grandeur u yonent bi wane na pureté bi famem nekk waaye itam wane na fragilité biir jullit yi li fa nekk ndax am na ñuy toxal ay wax di fen li kulli mri'in kenn ku nekk nag minhum maktasaba la mu ca liggéey minal ismi ci bàkkaar rek moom mooy am xanaa xamoo léeg-léeg information ak désinformation am yàlla moo koy sànni ci àdduna bi ay rumeur léegi nag bàyyi nit ñi di ko wëndeel kenn ku ne li nga ci liggéey rek moom ngay am ki nga weddi dina ci am yiw ki nga dëggal ca lay alko walladi tawalla kibrahu ki nga xam ne nag moo jur moo jël moom maanaam maanaam la ca gën a rëy nga xam ne moo ko inventé muy Abdullahi kenn mënul fexe ba duma ko duma man yàlla minhum lahu azabun azim buggal mu mu tarte kooku maag moom la mais yéen jullit yi mat ngeen a yedd mat ngeen a yedd information bu rëyee nii ñaawe nii buñ leen ko joxee est-ce que waroon waru waru leen woon def ay investigation waaye ñëw rek commencé jël rumeur bi di ko consommer lawlaa is sami'tumuhu est-ce que rafetul woon bi ngeen ko déggee zannal mu'minuna jullit yi dëgg-dëgg ak mu'minaat yi ñu foog bi anfusihim ci seen bopp xayran yiw wa qaalu ñoom ñu waxal seen bopp décisivement ne hada ifkun mubin lii yu ñu lu ñu yu ñu fent la rek lu tax waxu leen loolu lala lan lay jàngale mooy ba fii may wax ak yow foo déggee euh, rumeur bu jug yow jullit piir bi li ngay jëkk a mooy du dëgg waa bi nga ne du dëgg lu mu la wàññi même bu nekkoon dëgg lu mu la wàññi kon kay neel du dëgg rek waaw yéen sax jullit dafa am lu ma leen jàngaloon lépp lu jëm ci wàllu sexualité luñ leen ci wax bala ñu mën a confirmer ne diw def na lii faw mu am ñeenti seede yéen lawlaa jaa'u alayhi bi arbaati shuhada lu tax andiw leen ñeenti seede ci safwaan boobu ibnu muattal boo leen wëree ñeenti seede yi fa id lam yatu bi boo leen gisul seede yooyu fa ulaayika inda allahi humul kaadibuun ngeen xam ne ñii waxuñu dëgg mais yéen jullit defu leen loolu da ngeen ko consommé ci ngay xam ne kon waa madina kenn mu muccul loolu yàlla def ñu ciy jàngal ba bésu tey jii bu rumeur amee masse bi waruñu consommer rumeur bi parce que journal tel moo ko wax wala site tel wala euh, boîte tel déedéet na na nga ci def investigation dem concerné na bu la concerné wul yow sa yoon nekku ci boo gisul lu crédible nga dopp ci mais jullit yi attention walaw la fadlullah aleykum wa bu dul woon lu yàlla gi mu def ci yéen ne kuntum xayra ummatin wa rahmatu ak yërmandeem fi dunya wal axira gi ma programme ci yéen ak euh, adduna ak alaxira attention la massakum fii ma afattum dina leen laal ci li ngeen xuus ci ay wax yu ñaaw fiihi azabun azim mbugal gu tara tarata ndekete xuus ci wax ju la concerné wul dina jur ay mbugal ëllëg xoola ni mel léegi donc rek ji nit lu la neex complot ci nit lu la neex après jeex na déedéet du jeex du jeex lii du actualité ah lii la ci yàlla jublu woon nga xam nga actualité bii ci intoxication ak désinformation ak rumeur bu ko yàlla lijjantiwul woon ci xadisul ifki duñ ko mën a jariñoo ba tey ji ci troisième millénaire waaw yéen yéen jullit yi est que yéen matu leen yedd kilifa yu toll ni yéen ngeen jël benn rumeur di ko consommer fu ne ngeen wax ko fa te leen crédibilité wu river bi istalaqawnahu ngeen ngeen koy paasante bi alsinatikum ci seen làmmeñ bu doon tey ku nekkaa ngi téléphone ku nekk naa xaaral ma envoyé message bi xaaral ma envoyé la photo yi istati def def ko istati ku nekk naan yëg ngeen li xew dara xewul da ngeen toog ba yàgg dëgg gi feeñ nga ah moom fii la mujje ah ndekete lii du woon dëgg ree foog na fa lay yem déedéet deru jàmbur bi nga yàq da nga foog ne ëllëg doo ko fay axa kay di nga ko fay istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluuna ngeen wax bi afwaaji bi afwaaji maa laysa lakum bi ilmun loo leen amul benn xam-xam defu leen ci investigation wa taxsabuunahu ngeen foog na yooyu ngeen paasante ci internet bi hëyinan lu simple la rek indallahi ci yàlla ngeen foog ne loolu dara ah non non dañ ko waxoon rek man xaw ma ko woon yëguma ko woon ñu paasante ka juum ngeen wa huwa inda allahi ngeen xam ne fa yàlla azimun rëy na lool te Aïcha moomu ñu ko tuumaloon ak beneen jigéen ba addunay tukki bu dee jullit ñoo bokk xorma ca yàlla jigéen doo fi tuumal te justifié woo ko yawmal qiyaamati di nga taxaw ci kanamu yàlla nga def loolu waaw yàlla ne walaw laa is sami'tumuhu est ce que rafetul woon bi ngeen ko déggee xultum ngeen wax dans un premier temps na maa yakunu la rafetul sax ci ñun même bu amoon sax rafetul an natakallama bi hada ñuy wax ci lii ci première dame première dame rafet na ngeen wax ci moom lii hmm? ba pare ngeen wax ne subhaanaka tudd nañu sellu yàlla hada buhtaanun azim ñaar yooyu ngeen waroon jël mooy jaaduwul ñu wax ci ba yàgg sax man ngeen gën a avancé ne amul amul amul waaw dina leen wax nag li tax amul xam nga lu tax ab yonent ab yonent mën na mooy yàlla kon soxnaam nan nan lay mën a mooyee yàlla parce que soxnaam bu bu amul woon auteuru doon soxna yonent du mën a doon soxna yonent kon subhanaka hada buhtaanu azim jullit yi ne yàcce yàccaar mu ne maa ngi leen di yëgal ne ya'izukumullahu yàllaa ngi leen di waar an ta'udu ngeen bañ a delloo ci li misli yi ci lu mel nii abadan ba faw in kuntum mu'minin dem jullit ngeen damay laaj ndax delluwuñu ci ci lañ dëkk in kuntum mu'minin la wax léegi nag bu dee jullit ngeen jullit pire bu dee jullit ngeen bu leen delloote ci rumeur yu mel nii kon jàppal ne ki ci ne bokkatul ci mu'minin yi loolu mooy <laughs> ma fuumul mu xaalafa bi in kuntum muminin koo gis muy jël ay photo yu bon ay euh, di ko def ay istati di jël secret jaamur di ko feeñal di ko diffu diffuser ci net beeg télé yeeg yu mel noonu yàlla nee na bokkul ci jullit yi to yubayyinu llaahu lakum yàlla mu ngi leen di leeral lakum ayaati ay wallahu alimun hakim euh, dafa am nag nit ñoo xam ne lu ñu dégg mu siiw lu ñu dégg bu dee dëgg mu siiw bu dul dëgg dina siiw mooy Abdullah ibnu Ubay ak ñu mel ni ñooñu xam nga Abdullah ibnu Ubay moo wax wax ji mais moom siiwalu ko de da wax rek ne ah innahu lam taslam minha wa inna innaha lam taslam minhu loolu nag la wax noppi moom kalu mais am na ñoo xam ne ñooy toxal wax ji comme ni xorondom di toxalee ay euh, euh, dugub yàlla ne dafa am ci nit ñi ñu mel noonu ñooñu neexuñu ma dara inna alladina yuhibbuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalamu wa antum la taalamun ñi nga xam ne dañoo bëgg rek di siiwal li gaa yi naan bës ñoom daal lu xew lu ne bu nit deewoon sax tànk defuñu ko estati tàggee ko ñëpp duñu noppal loolu feebar la ñooñu nga xam ne dañoo bëgg an tashia pour siiwal faxishatu lu ñaaw te duñu yëgle mukk lu baax diw day dem Makka ren duñ ko wax diw otoom bu bees bi duñ ko wax diw dafa kii waaye yéen yëg ngeen li xew <laughs> diw dañ ko tëj démb dañ ko tëj ah lu xew mu ne ah yëgoo détournement yi mu def moom fu mu doon liggéey yëpp dafa détourné alal ji dafa am nit ñu mel noonu yàlla nee na ku mel noonu euh, fi euh, fi diina amanu di ko tas ci jullit yi ngir déstabiliser leen lahum azabun alim fi dunya wal axira dinaa toroxal fii ci àdduna maanaam doo xaar ba dee de yow moom bëgg yëgle lu bon bala ngaa dee di nga am lu bon ba pare ñëpp dinañ ko yëg boo dee nag yàlla duuma la duuma lu metti ndax wallaahu yaalamu yàlla xam wantum laa taalamun yéen a xamu leen dara attention walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu bu dul woon yërmande yàlla euh, wa wa anna allaha ak yàlla raufun rahimun bil muminina xam nga ne dina leen ah yàlla nee na bu fekkul woon ngeen bokk ci xeet bi nga xam ne ñoom laay yërëm kon musiba dal leen yaay yaa ayyuhal lazina amanu yéen jullit yi nag mag yu toll nii yéen rafet na ñu jox leen ay information ngeen topp ci yëgër yëgër yi nii nan da ngeen koy yëgle rafetul yaa ayyuhal lazina amanu laa tattabiu bu leen toppati ci seytaane ay jéegooy seytaane ci façon yu mel nii seytaane moo leen instrumentalisé ba ngeen joxe information bi mu man yattabi ku toppati xutuwaati cheytaan fa innahu na nga xam ne moom lii lay liggéey ya'muru bil fahshaa'i lu bon rek lay dégle wal munkar ak lu lu ñu sib xamoon na cheytaane loo lay liggéey boo taaloon tele di déglu information jàmm ñu wax ci jàmm ay gàmm yu am ak ziyaara yooyu yooyu du information cheytaane cheytaane information incendiaire lay joxe yëg ngeen li xaw en urgent en rouge ca dara ngir rek bëgg a yëgle lu bon walaw laa fadla aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum budul woon yërmande yàlla mbaaxam ma zaka minkum kenn du ci set minkum min ahadin abadan yéen jullit yi yéen laay waxal budul woon sama yërmande du ma setal kenn égal ñu bari wax nañ <laughs> ñu bari wax nañ waaye am ngeen chance sax walakin allah waaye yàlla yuzakki man yasha mooy so sellal ku ko soob wallahu samiu alim aay bi mu wàccee Aboubacar dafa jooy Aboubacar dafa jooy ndax ki gën a acharné ci toxal information bi mooy Mistah ibnu Asasa te Mistah ibnu Asasa sëram moo ko jur moom Aboubacar Aboubacar yar ko di ko dundal muy jarbaatam nekk ci kër gi dañu wax ne boroom kër gone li koy gën a metti kii fanaan ci kër gi kay def te lu mu sol yaa koy jox lu mu lekk yaa koy jox te ko jox paaka yow la koy jam jarbaatu Aboubacar boobu moo topp dëkk bi daal yëgu leen li xew de suñu kër toj na di yëgle di wax di yëgle di wax bi ko Aboubacar déggee kii ak li ma koy dundal yëpp ak li ma ko héberger ci kër gi génnee kër gi dàq ko ne ko duma dundalati ndax yaayam la nekkal muy umu euh, mistax boobu moo yëgal Aïcha li xew looloo taxoon ndaw si naan Taïsa euh, euh, Mistah Aboubacar mer génn xale bi yàlla wàccaat nag aaya complété ne ah bu leen yëg seen bopp nag wala yëgtali bu mu waat ulul fadli borom xéewal yi mi ngi ko wasaati ak yaatal ku wërsëg ñu naan billahi du ma dundalati diw naan an yu tu dañuy joxe ñu ba duñ joxati ulil qurba seen jarbaat yi wal masakin ak ñi ñàkk wal muhajirin ak ñu jóge Makka fi laay ñëw ci yoonu yàlla ñuy waat naan duñ leen dundalati déedéet wala yaxfu nañ leen jéggal wala wu ñu wan ñu dumaayu dumooyu nii ngeen ma tooñ maanaam nii ñu la tooñee ba tax nga mer génn xale bi man yàlla man mi leen bind maa ngi yëg ne maa ngi yëgle ne ci tooñ ma ngeen dëkk te génnuma leen kon roy leen ma yàlla teg ci nag baat bu yéeme ne alaa tuhibbuuna xanaa bëggu leen an yaxfira allahu lakum yàlla baal leen wallahu gafuur rahim aboubacar ne balaa yaa rabbi qad uhibbu dalik bëgg naa ko kay bëgg naa nga baal ma ci la ñuy xamee ne ndekete baaluk yàlla fan lay tegu yow yaay baale ba pare waaye dëkk naan astaghfirullah astaghfirullah yàlla baal ma te yow doo baal kenn kenn du la baal kenn du la baal kenn du la baal lii moo xew yàlla nag tëj aay yi ne euh, wax nag jullit yi pour ngeen bàyyi xel jigéen warul doon benn bal boo xam ne fu mu la neexee rek fu bal lu la neex teg ci deram jigéen rombala nga naan ah yow sa affaire wóorul de ban affaire jigéen romb la muuru nga ñii gëmuñu dara ku la ko wax jigéen romb sol lu gàtt nga atte ko ah ñii de dañuy nàngam ëpp naa def xataa même ñiy jaay seen bopp amoo droit tudd leen ndax gis nga leen ci xaal gis nga leen ci melokaan mais gisoo réalité bi gisoo réalité bi yàlla ne jullit yi bàyyi leen xel loolu inna alladina ñi nga xam ne yarmuuna ñooy sànni muxsanaat yi jigéen ñi nga xam ne dañoo sangewu xaafilaati sàggan mooy yàlla muuminaat ca gëm yàlla comme Aïcha ñu baax ñu mel ni ñoom ñii def loolu sañ ko lu'inu rëbb nañ leen fi dunya wal axira alaaxira ak adduna nag wala alim mbugal bu méttee méttee azabun azim waaw may laaj li xew moom lu mu doon jigéen boo gis jël photom euh, fekk photo yoo xam ne yu rafle la nga diffuser ko xanaa booboo gën a dee nga bu njëkk sax wax ci der lañ doon wax léegi nag dangay jël ci nit ki ay photo yoo xam ne mbaa ay vidéo yoo xam ne kenn mënu koo xool yow nga diffuser ko nit ki lam def tëju nit kay nit ku ku ne lam def tëju concerné wu yow nag nga tijji ko yow yaa ko tijji yow ndax moom dafa tëju def ko yow nga tijji ko def ko may laaj yéen ñaar ku ëpp bàkkaar xamoo yow yaa ko ëpp bàkkaar ndax ki am conscience def dara tëju kooku xam na ne dafa waroon a tëju pour def loolu léegi nag yow mi jël vidéo wala ay photom nga rafleel ko ci biti génne ko ba yëgal ko àdduna bi yëpp yow kenn yeesu la te yàlla nee na ku tere ma dumale fii ci àdduna du am ku tere ma dumale fële ci àllaaxira du am du àdduna bi xam nga mooy lan lu mu yàgg yàgg yow lu raw li nga daan def yow di leen la ko yow fii nii ci àdduna ba ba kenn du la xoole ba doo jarati dara mais boo duggee ci bàmmeel di fa fekk mbugal bu yees peq xam nga suuratul nuur jamono yii dañ ko waroon di jàngale lii kenn xamul lu mu doon te àdduna indi ko yàlla ne ñooñu nga xam ne dañuy vilipande jigéen ñi di leen toroxal di leen yëgle ci euh, internet yàlla ne ne yow ma tashhadu alayhim dina seede ci ñoom alsinatuhum seen làmmeñ yi ñu doon waxe lool di ootante téléphone naan yëg nga li xew nangam nangam làmbañ boobu mooy buccate ku taxaw di wax ak yow ne la yaa defoon lii yaa defoon lii wa aydihim seen loxo yi ñu daan dugale vidéo yi ak seen loxo yi ñu daan yëge joxe information yi yàlla nee na dina taxaw seede leen wa arjuluhum ak seen tànk yi nga xam ne fa lañ daan dox pour dem yóbbu information yi tànk ba dina taxaw seede contre ñoom bi ma kaanu ya'malun liñ daan def yëpp dañ leen koy wax yàlla waxul ki njaaloo waxul kii def lu bon dane ki kay siiwal laa wax googu dina subir conséquences yi c'est lii yow ma idin bés boobu ñooñu di yëkkale lu bon loolu yuufihimullahu yàlla dina leen matal ba mu mat sëpp diinahumul xaq seen euh, bàkkaar yooyu seen boru bàkkaar yooyu euh, wa yaalamuuna anna allah huwa alxaqul mubin dinañ dem ba yëg ne ndekete yàlla dane woon jarra di leen xool yaa toog ba guddi oolu benn waay di chantage ci vidéo di ko chantage ci ay photo boo ko deful dama koy diffuser ah yàlla leen diffuser diffuser dinaa la diffuser yow it yowmal qiyaamati dinaa la def lu bon loolu pexe pexe amu ci fi muy tëje nag mooy yéen jullit bi boo leen conscient woon tuuti war ngeen xam ne yonent bi du am ku bon këram euh, dañuy lan la ñu góor ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña ñu baax ña ci ñu baax ña ñu bon ñi waaye yonent bi ndax bon na kon mënta am ku bon amul alxabisaatu ñu bon ñu jigéen ñi lil xabisiina góor ñu bon ñu ñoo leen yor ah demal rek bistron ba ak kabaare ba ah fekk ay jigéen ñu bon góor ñu gën a bon ñoo fa nekk yàlla ne wal xabiisuuna góor ñu bon ñi itam foo gestoo di nga gis ne li xabiisaati jigéen ñu leen gën a bon ñoo fa nekk benn waay dafa ne ma da da benn waay dana dafa da ngay jaay bon maa la gën a bon waaw ñooñ ñooy ànd ku ku bon ku ne ku la gën a bon rek ngay ànd kon góor goo gis mu bon jigéen ju ko gën a bon mu ngi ak ci wetam jigéen joo gis mu bon góor gu ko gën a bon ñoo ànd contraire bi ci ngeen ko waroon dégg wa tayibaatu góor ñu baax ñi ba mel ni yonte yàlla muhammad euh, astafurlah wa tayibaatu jigéen ñu baax ñi ba mel ni aïchatu ak tabarakallahu euh, fatima zahra bu leen laajte li tayibiina góor ñu baax ñi ñoo leen di am góor goo fi tugg tudd naw ko di nga gis ni jigéen ju baax la ya la ko yàlla booleloon wa na góor ñu baax ñi ci yonent yi ak aqtaab yi ak awliyaa yi ak nit nitu yàlla yu baax yi ba ci suñ jamono jii it tayibaat yi jigéen ñu baax lañ leen boole moo tax exception bi bariwul de góor goo gis nu mu mel noonu la jabar ji mel jaru ngay laajte nag jigéen joo gis itam nu mu mel noonu la jëkkëram mel duñ sore yàlla du jum yàlla du jum doo gis koo xam ne day tux bon jabar jee koy dàq tux nga gis itam jigéen joo xam ne day tux bu laajte jëkkër ji moo ko dàq nga gis jigéen juy naan jabar ji jëkkër jee koy raw nga gis jabar juy naan jëkkër juy naan jabar jee koy raw waaye góor goo gis itam muy fanaanee la bu fanaanee la ba fajar bu gessoo dina gis jabaram yàlla moo def loolu nit ku ne noo mel ku mel noon ngay àndal li la koy wan mooy ku ku ku am jëkkër te bokku leen jikko sëy ba dina yàgg kon kay bu yàggee da ngeen bokk jikko rek hmm? da ngeen bokk jikko jigéen sax di nga ko jël ci waxin ci début bi mu mel ni niroow leen jikko mais bu yàggee nga wàll ko góor itam la même chose bu yàggee nga wàll ko mais wàllante bu mënta am mooy bokku leen waaw wan ngeen xam ne kon yonent yàlla Muhammad bu demee te mi gën ñëpp soxnaam kay du du du amee jikko ju ju wàcci wa tayibaatu tayibuna ulaayika ñooñu mu na dañ leen setal wicci mooy jigéen ñu baax ñooñu mm, mu barra'uuna mimma yaquluun ci liñ leen di ji lahum magfiratun dinaa leen fay njëggal wa rizqun karimun yàlla nag tëji aay yi ci li ñuy tudde éducation sexuelle dafa am ay préalable euh, comme sexualité ci néeg lañ koy defee yéen laay waxal bu leen def néeg néeg boo leen gis mu tëj ngeen ubbi loolu baaxul yaa ayyuhal ladina amanu moo lay wan ni jullit de l'islam devancé na ñëpp quinze siècles de cela yaa ayyuhal ladina amanu laa tadxulu bés ni tey laa bu leen duggati buyutan ay néeg daf ko ten euh, nakira buyutan néeg bu mu mën a doon bu leen fa dugg xayra buyutikum te néeg boobu du seen néegu bopp xataa lu lulul ngeen yëglu da ngay yëglu mooy koŋ koŋ koŋ boo yëgloo def bruit bul ci yem nag ñu bari dañuy fëgg rek dugg déedéet watu sallimu nga nuyuwaat ala ahliya ci waa kër ga néeg ba amoo droit rek ñëw dugg ah sama rakk la sama ndijaay déedéet na nga yëglu hmm? wala nga def benn bruit ba pare nga ne asalaamualeykum daalikum xayrun lakum looloo gën ci yéen laallakum tazakkarun boo leen boo leen comprendre parce que bari na bunt bunta boo ubbi sa lépp ubbeeku yow di nga fa gis loo xam ne fa ngay jaaru jaar yow waxuma ubbeeku waaye sa léppay tëju sax ndax di nga fa gis loo xam ne mënatoo dellu mënatoo avancé néeg boobu boo nuyoo nuyoo kenn wuyu la fa in du tajidu fiha ahadan boo fa fekkul kenn maanaam bu la kenn tontuwul bul tax nga ne ah fii kenn nekku fi ubbi bunte bi déedéet falaa tadxulu bu leen dugg kan moo ne la kenn naa ngi ci biir dafa noppi rek ku la ko wax nga naan non kenn nekku fi xaaral ma dugg déedéet falaa tadxulu xataa yuzana lakum lu dul ñu jox leen digal lu mu yàgga yàgga laa buñ la wuyuwul bul dugg nga ne may bu ma toogee midi ba di heures kenn wuyu ma mu ne fa in qiila lakum ñu la doon waxee ne irji'u dellu leen fii koo fi fëgg a néegam mu kookal la yow la di mu ne dellul mën a guma la recevoir xam nga da nga koy bàyyi yàlla nee na buñ nee la dellul farji'u dellul huwa ak lahum lakum moo gën a sell ci sa xol ndax li nit kii dund ba ba mënul laa recevoir sax dellu boo gën a woyof nga dugg wallahu yàlla bima ta'maluna alim yàlla lépp loo xalaat rek xam na ko may laaj nag loolu lii ba mu koy wax bul dugg néegub jàmbur te fëggoo dugg néegub jàmbur ak kaal téléphone jàmbur moom ban moo gën a intime téléphone jàmbur bari na téléphone jàmbur boo boo taal sëy bu tas lay mujj ne ah yow ndeke nit diw nii nga mel ndeke yow diw mii ngay woo ndeke sa téléphone yii ci ne ku la ko sant nii ngay fëggee ci buntu tabarakallahu néeg bi nu ko raw nga waroon a fëggee ci téléphone kooku téléphone intimité wu nit ki moo ci ne waroo fa am accès même boo ko fay am na ko na ko laaj ndax ndax ma ndax ma jël téléphone bi ndax ma woote ci ba mu jox la ci ndigal jombul nëbb na fa yoo xam ne nii buggul nga xam ko boo lijjantee nag ba xam ko loolu daal yow la ah. loolu daal yow la loolu lii éducation la boo xam ne nii wax dëgg yàlla àdduna bi war nañ ko xoolaat te yàlla moom ñu ko jàngal ci suuratu nuur ak yeneen Aïcha nag ci la sant yàlla subhaanahu wa taala problème bi jeex Aïcha delluwaat néegam avec fierté et la tête très haute euh, très haute loolu nag dafa am lu muy jàngale mooy jigéen euh, jigéen boppam la am waaye dafa am lu muy jàngale jullit itam bu dé bu mu déggatal rek ne damm na Aïcha nag loolu jur na euh, comme dégg na information yi ak ñi ci jël ay position am na nag lu mu jàppal Ali ibn Abi Talib ndax ñoo bokk kër gi waaye dóor gi mu dóor bu rëy da nankaan wax ma dëgg gi dane <laughs> kon kii la ban intérêt la am ci dóor yi waaye ala kulli xaalin Aliou moom jàppalu ko dara gis nga loolu nag moo continué ba ci maarakatul jamal maarakatul jamal diggante Aïcha la ak Aliou ibnu Abi Talib te la ca dee kenn xamul nu mu toll ndax lii nii rek moo jur frustration yi maa lay seddal na itam chia yi nga xam ne ñoom njabootu Ali lañ looloo tax buñ tuddee Aïcha ñuy bëgg a dee ndax euh, foofu la lii jóge te lu ndaw rek la woon Aliou moo dóor bu da muy domestique wa Aïcha nekk wax ma dëgg mu nekk nag xanaa beneen dëgg nga bëggoon euh, te ay euh, Aliou dafa gisoon stress bi yonent bi nekkee woon rek sa mu bëggoon ko noppal xam lii dëgg lan la ne yàlla xatalu la waaye Aliou amul benn problème ak moom ay xarit lañu waaye nag diggante góor ak jigéen dimension yi du tolloo jigéen li ko frustré dafa kii te Ali waxu ci dara defu ci dara waaye yàlla dogal na ci nattoom daal euh, ñu dëkk moom du ñaar du laaj du ñàkk ñuy laalante yàlla na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp lii moo xew ci sanatu xam si ci début bi bi li xewee nag ba mu jeex dafa amaat beneen xew-xew bu rëy nag bu war a xew li gën a daanaka xaw a tolloog Uhud mu ngi waaj a xew mooy gazwatu xandaq xandak nag lii nga gis ci suuratu ahzab yëpp moom la fa yàlla eh, eh, réglé yow mi déglu di nga ci xamee ne ndekete kon alxuraan bi li muy rëy rëy ñu koy tajwid ndekete alxuraan bi dund yonent bi lay réglé moo tax jullit mënta ñàkk xam dund yonent bi pour mën a xam lan mooy alxuraan ndax aaye yëpp dafa ñëw pour régler wala résoudre ay problème yu xewoon ci dund yonent bi boo xamul nag contexte yam wàccee doo mën a xam ay donte firil nañ la ko mais doo xam lan lay wax hada huwa tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu